pour entretenir pour waxtaanaat ak askan bi waxtaan ak mbooloo bi ci benn feebar boo xam ne dafa law ci àdduna bi law en Afrique law ko Sénégal tey dañuy wax waxu Eh, hépatite B pourquoi ñu choisir eh, wax tey eh, waxu hépatite bee parce que dafa nekk feebar boo xam ne comme ni ko waxee dafa law ci àdduna bi à travers le monde mën nañu am am nañu li nga xam ne moom mooy deux virgule cinq milliards de personnes qui son touchées donc c'est énorme hein c'est énorme bari na trop en France France moom mooy euh, suñu référence euh, il y trois millions de personnes qui sont euh, touchées nous concernant puis au Sénégal li nga xam ne moom moo fi am Sénégal bi ñu mujjee compter toll nañu à peu onze pour cent de la population donc lim bi dem na ci ñaari millions donc euh, il faut ñu wax ci parce que il faut ñu attirer seen attention ñu xëcc leen ngeen xam pour que ngeen euh, mun parce que mun nañ ko moytu ah feebar boobu mun nañ ko moytu euh, hépatite B parce que am na lu ñuy wax benn euh, fii paj bi maa ngi anticipé benn jumtukaay mooy euh, vaccin bi suñu vaccin contre hépatite B euh, ça existe au Sénégal depuis mille neuf cent quatre-vingt-un et vaccin bi am na efficacité de quatre-vingt-quinze pour cent donc comme ni ñu tàmmee wax rek fagaru moom moo gën faju Ehm, loolu moo tax ñuy eh, ñaax encore eh, population bi ngeen eh, dem vers les structures de santé ñi nga xam ne ñi ngi def vaccination bi ngeen def lu ñuy wax dépistage bi dépistage bi moo ñu seet ndax am ngeen hépatite bi ci seen deret te bu boobaa bu fekkee nekk na xam na loo xam ne mën nañ leen ko euh, proposer pour euh, faj bi bu fekkee nekkul nag ñu proposer leen toujours euh, benn système de prévention moom mooy vaccination bi te vaccination bi donc ça marche donc ñu ñëpp ah ñun fajkat yi yenn population yi ñun ñëpp suñu lonkaloo jàppante loxo mayante doole ñun ñëpp euh, mun nañu euh, reculer loo mun nañu ba max euh, li nga xam ne moom la ñuy wax hépatite donc hépatite lan mooy hépatite hépatite B hépatite B benn feebar la boo xam ne dafay laa laal li nga xam ne moom mooy rees bi mooy foie bi te lii di andi benn benn virus la ñu koy wax virus de l'hépatite B naka lay euh, ñëwee naka nañ koy jàppee dañ koy jàpp soit par ay rapport sexuel bu fekkee euh, dañuy jote wala nga laal li nga xam ne deret boo xam ne donc dafa euh, dafa infecté donc euh, feebar boo xam ne euh, donc comme ni mu leen ko waxee bare na Sénégal bare na donc à travers donc le monde euh, naka lay manifester naka lay manifester ni muy manifester manifestation bu njëkk ñu ngi koy wax ictère moom mooy jaunissement mooy bët yi dañuy jaune ah Euh, wala si der bi ñu gis ne que ne bi donc euh, dafay jaune donc ictère euh, boobu mun na ànd ak li ñuy wax benn fièvre mun na ànd ak fièvre yaram bi donc di tàng surtout bu fekkee wàll bi dafa bees hmm? wàll bi su beesee donc ictère bi wala jaunissement bi donc dafay ànd ak fièvre te loolu am na yeneen signe yu yu muy yu muy àndal notamment ay biir yuy metti ay moo am ay douleur articulation yi donc euh, di metti euh, nit ki su sawee ñu gis ne que ne saw yi dafa euh, xaw a foncé mun na am am tamit ay donc biir yu metti mun na am lu ñuy wax altération de l'état général Euh, à type d'asthénie nit ki donc day yëg si euh, yaramam euh, wala benn anorexie donc nit ki dafay gis lekk te du ko du fi am envie donc du ko laal wala du ko laal te comme ni mu ko waxee rek fagaru moom moo moom moo gën yooyu signe yooyu donc su dépassé rek am na foo xam ne suñ su fa yeggee dañuy am lu wax benn hépatite chronique te hépatite chronique bi bu fekkee euh, nit ki amul chance trop trop euh, dafay évoluer soit joxe benn cirrhose cirrhose dina am émission boo xam ne euh, dinañ ci wax cirrhose bi Euh, moom mooy euh, foie bi yaxu donc foie bi dafay yàqu te foie dafa am importance donc ci nit soit mu jox la silo soit mu jox la benn cancer cancer du foie dina am émission boo xam ne tamit dinañ ko consacré si cancer du foie donc euh, ngeen xam ne que ne mbokk yi feebar bi feebar bu doy waaru la mais bu fekkee fagaru nañu bi rek donc mun nañu arrivé donc à donc pour euh, faj bi euh, wax naa si ba noppi euh, li nga xam ne moom mooy premier mooy élément bi nga xam ne moom moo si gën importance moom mooy vaccination bi vaccination bi c'est efficace comme ni ñu leen ko waxee à quatre-vingt-quinze pour cent donc ñi ngi donc askan bi ngeen daw vers les structures de santé def euh, euh, def dépistage bi def vaccination bi e bu fekkee tamit nit ki euh, def feebar am nañu ay jumtukaay donc pour la prise en charge donc pour toppatoo pour toppatoo malade bi donc pour émission bi donc dañuy yem fii xanaa rek may remercier sama benn pap sama benn tonton boo xam ne vraiment chaque émission chaque émission daf may woo di ma encourager di tas émission bi dama bëgg a euh, téléspectateur tamit euh, waa SeneInfo ngeen di tas émission bi ñëpp di ko xam ñëpp di ci jëriñu donc sama pap boobu ñu ngi koy wax euh, Ibrahima Dramé mi ngi nekk Parcelles Assainies Serigne Ibrahima Dramé donc euh, merci beaucoup di remercier donc euh, auditeurs u seen info yi euh, di leen jox dik daje le mercredi prochain et di remercier en même temps équipe bi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ñoom tax émission bi nekk et plus particulièrement suñu caméraman bi Abdel toujours présent, donc actif, offensif. Allez, merci, merci beaucoup et à la prochaine. Sénéinfo International ànd ak ay partenaire am Salim Dieda World Trading clinique Marie ak Al Madina International Travel ñoo leen di may seen émission wér gu les mercredis de docteur